na nga def. maa mooy sa problème. sam problème mooy que ne dama dul ànd ak nit ci lu dul dëgg. Adji Sarr moo ma fi indi moo tax ma jóge ba Jifeer ñëw fii. fan nga dëkk. Jifeer laa dëkk. ban euh, région la. Jifeer mi ngi ci boo boo paasee Mbour. da ngay paase Mbour paase dëkk bu ñuy wax Samba Dia paase dëkk bu ñuy wax Palmarin doo ko egg Jifeer. d'accord Jifeer la benn buntu la. falaa nekkoon di jaay fiiril. ni jaay Adji Sarr bas gis ma fa. maag moom ñuy génn mu daan dem di géej di maare. maa moom ñu génn ba yàlla def say am ci aji ci man la ne woon mais aji dafa nekkoon jifeer première fët bi mu njëkk a def. d'accord balaa ñuy egsi foofu. yow euh, nijaayu aji moom mooy sa borom kër. mooy sama jëkkër. ñaataat ngeen sëy. maa moom nañ deux ans. deux ans ngeen sëy am ngeen doom. am nañ benn benn doom. am ngeen benn doom. am nañ benn doom man ak moom bu jigéen. d'accord nga ne aji si yow la nekkoon. aji ci man la nekkoon jifir. Mhm. waaw bi mu nekkee ci man jifir mu jël téléphone jàmbur boo xam ne capitaine u gaal la. bi mu fa sàccee ab téléphone ñooñu dàqe ko xale yu góor di xeex ak ñooñu ñu jël ko dem nëbbu ko ci benn kër benn maire bu yor restaurant li may wax bu ko déggee dina ko xam bi maire boobu noonu làqee ko ba suba sa lañ ko jëlal oto yóbbu ko benn dëkk bu ñuy wax yaayam yaayam ma nga ca côté Fimela am na ñu bëri ñu xam Fimela ndax Fimela mooy côté campement Ndangaan ñu jëlee ko fa door ko indi fii Dakar mu nekk Dakar bi mu nekkee dakaar man li ma ci gën a ñor mooy woo na nijaayam téléphone ne ko sama non ñëwal ñëwal continuer ci li nga nekkoon balaa ngay egsi foofu puisque nit ñi lay dégg xam ne yow mi li ngay wax daf la leer nañu. merci bi mu jógee foofu mun nijaayam sama tante de bi ma nekk fii Grand Yoff kooku bu dañuy jaay añ ba mu jeex du ma may añ ndekki tamit dagg mburu fukki dërëm la may jox te ndab yi maa koy raxas ma ne ko dafa bëgg lu yomb aj dafa bëgg noflaay du liggéeykat aji tey moo dem def ay affaire ay promotion. Mm-hmm. nijaayam ne ma ah aji daal ba ko foofu moom kenn xamul lu mu bëgg ma ne ko da nga koy gëtal nag mu wax la li mu bëgg parce que xaritam nga mu ñëw fii Dakar jékki-jékki woowaat nijaayam ne ko maa ngi Pikine am naa fi liggéey massage yaa ngi dégg bi mu waxee loolu ba ay mu am ay fan mu woowaat nijaayam téléphone ne ko nijaay fekk xale yi ñu ngi ma wax naan aji de temps yi daa am bës ndax moom mooy massage Sonko ma naan leen kuy Sonko ñu ne ma kooku ci affaire politicien yi lay liggéey ñu bàyyi wax jooju mu teg ay fan mu war nijaayam ne ko nijaay dafa am benn liggéey bu ñu nijaayam ne ko lan la mu ne ko dañ ma ne jaar ci turu nit ne ko kooku daf ko ne. waxal lañ la wax lépp. def ne ko euh, xaw ma Babacar xaw ma moom moo ne ko na ko fexe ba bu fa sonk ñëwee bu fekkee moom ak keneen dañ faa nekk na fexe kooku génn moom na woote téléphone wax na Sonko daf ko violé nijaayam ne ko na laaj lu ko jar. yow bi instant bi aji di oote yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi. sama téléphone maa ngi togg añ ceebu kecax di yekk sama téléphone. itali yi jar 5000 simple yi moom laa yoroon ci la woote. man maa wuyu. kooku nag doomu jàmbur mi ne ma waaw tante ça va man ak ça va sama nijaay man ak nga ne dem fekk ko ci mbaar ma bi. muy wax ak saar maa ngi taxaw maa ngi yekk noonu ceebu kecax añ. ay heure añ. nijaayam ko nanga laaj lu ko jar. mi ne ko lan laay laaj mi ne ko na nga fexe ba nañ la jox lu ko jar ba nga xam ne bu subaa di nga ci mën a dimbale sa njaboot mi ne ko baax na ci la woote waat daan na nijaay nijaay ma wax nañ ma deux cent xaw ma deux cent deux cent millions xaw ma. ma ne ko deux cent million mi ne ma waaw ma ko ah yéen li ngeen bëgg a def ko mu ne ma loolu amul problème jege problème ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko kon baax na. ñu dawal ay fan ma ne ko yow mun naa ma ne ko yéen affaire mi ngi gën a dem ñi ñaa ngi naan Sonko Adji Sarr Sonko Adji Sarr Sonko aji Sarr man nag du ma fi fekk ndax lii mun naa ma ne ko xajuma ci mu ne ma dinaa la jox trois cent mille nga dem defi commerce. ma ne ko 300000 sama jëkkër mu ne dina ma jox 300 ma dem def commerce mais naa nopp ma ne ko dama noppi ndax lan ma ne ko parce que doomu jàmbur kenn du ko yàq ku yàq doomu jàmbur daf fekk juruloo ko mu ne ma boo noppee dama lay may sa baat ma ne tay mu ne ma may naa la sa baat. kon yéen ci problème boobu ngeen divorcé. lañ divorcé maak moom dem na dem naa doy na. léegi Adji Sarr moom dafa am doom. Adji Sarr am na benn doom. benn doom benn doom am na ko. doom bi ñaataat la am. bi à peu près ay 3 ans 4 d' accord léegi yow histoire bi muy expliqué nii benn ban période la woon. li ma lay expliqué nii loolu yàggul li ma lay wax nii yàggul ma wax nag ne date temps la. parce que mais bi problème bi amee la. bi problème bi léegi yow euh, bi nga tasee ak sa jëkkër ak ba ci tey jii nii ñaata fan la def. def na trois semaines. def na trois semaines trois semaines. ok d' accord léegi boobu ba léegi déggal teewoo ak sa jëkkër. woowu ma sax lijjantiwu ko na nekk ci jàmm ma nekk ci sama jàmm. d' accord xaaral léegi yow euh, nee nga Adji Sarr moom moo oote si sa téléphone yow sa téléphone bu fekkee ne Adji Sarr daf see oote nga jël téléphone bi jox ko sa jëkkër muy nijaayam ñoom ñaar li ñuy waxante yow naka nga def ba dégg. parce que téléphone bi soo ma woowee bu fekkee ba suma ba mu foor duma la dégg yow yaa may dégg waaye man du ma la dégg su ma ko defee nag mais libre yow danga may dégg man ma lay dégg bi may woo net mi ngi fekk may jël sama morso di tegg cin bi boobu pare naa añ mu ne ma ana sama nijaay. ma ne ko kooka la doomu jàmbur mi ne an sama nijaay ma ne ko mi ngi nii ci mbaar bi ma jox ma ko ma jël téléphone jox ko ko ñëw indi foofu cin bi toog di yekk ci laa dégg muy wax loolu nijaayam naan kan am na liggéey bi ñu bëgg a def loolu. nijaay yow bi nga joxee sa nijaay euh, sa jëkkër téléphone bi ba pare da taxaw. ci mbaar bi la ci mbaar boobu la ñuy toggee añ. moom nii lay toogee. di ay buumam. man maa ngi nii di yekk añ moom mi ngi nii di ay buumam. d'accord ci noonu nag laa déggee seen waxtaan ñoom ñaar mhm. léegi Adji saar moom naka naka naka naka la doon naka la doon dundee ba nga jàpp ne li mu wax nii du dëgg. parce que li mu doon dundee mooy que ne Adji Sarr daan jël alalu jàmbur am na benn bis boo xam ne du ko mës a fàtte loolu maa ngi koy ràbb ni tax ko guma de dafa am faram beneen bu jugee woon mbuur ñëw sees ko jifir beneen faram bu nekk jifir ñëw fekk faram bi nekk mbuur ci biir néeg bi mu xëcc ki dëkk jifir ba mu génn mi ne ko waa ji mi ngi téléphone bu baax ak xaalis dangay ñëw rek génnee paaka mburu nga ne ngay def fii sama jabar la dégg nga wax ci kii sama jabar la waa ji tamit dem def loolu ñëw rek daal di yuuxu daal ne affaire nangam yi daal di saaga ndey foofu noonu wax ay waxam daal di ne ko kii sama jabar la daal di génnee waa ji bu max ko ci biti. man jour boobu noonu bu ñu ma ko ban loolu bu ma ñëwee ba yoo yam ci dama lii du dëgg après ma ne ko billaay yaa am fit mu ah, koy lijjanti ma ne ko di nga mës a lijjanti nag ba lëj mais lëjam boobu mooy bisub tay bii. d'accord est-ce que xam nga li ngay wax nii la ci mën a fekk lépp. dama cee daw dara ragaluma ci dara parce que man maa ko wax maa jugee jifir ba fii maa paasal sam bopp yéen ñi kenn joxuma ci paas kenn xamuma ci xamoo leen sax di ngeen ma mës gis. yow jifir nga dëkk laa dëkk ñor ma moo tax ma ñëw wax fa laay ñibbiwaat bu ci yàlla àndee. d'accord léegi madame man su ma la déggee dafa mel comme si que ne yow da ngay venger wu parce que li la sa nijaay fase la. man li la jëkkëru jëkk euh, nijaay aji fase. du loolu xam nga lu tax du loolu sama jëkkër dafa ma bëgg sama sëy bu tasee à cause de problème bii la su ma nangu woon jël 300000 yooyu noonu nga xam ne lewut dem jëndi ju ko bagage ñëw di ko jaay kon yéen du ngeen ko yëg mais dama ko nanguwul du lekk lu lewul naa dundee yalwaan te fi may waxee ak yow nii su ma ñibbi yee ji fiir naa mën a fexe ba lijjën Dakar gii wut fi sama liggéey ji liggéey barke alxuraan. kon ñoom instant bi nii encaissé nañ. ah xaw ndax encaissé na noonu moom jot na. la la waxoon lu lay jox 300000 yi. moom bi ma koy wax loolu bi affaire bi amee la ne ma yow noppil léegi loo bëgg ma ne ko bëgguma dara ma ne ma dinaa la jox 300000 yaa waxoon da ngaa bëgg commerce ma ne ko maa la waxoon damaa bëgg di jënd di ko jaayi Touba mu ne ma ah ma ne ko waaw te bu ma ko waxee léegi waxuma ci woon dara ba keroog la ma ko doog a jaat ma expliqué ko lii mais bi ma wax proposé xaalis boobu laa ko ne nag man suur naa ko du ma lekk loo xam ne nii leewu ma man damay ñaq di dundee waaye du ma jël alal di ko dundee ngir fen voilà problème boobu moom moo causé yéen ñaar seen divorce wala yéen loolu moo indi suñu divorcé man ak moom parce que nee na man naa noppi ma ne ko du ko noppi wala damay wax nijaayam bu dégg loolu dina xam ne maa ko wax man maa ko wax nëbbu ma làqu ma maa ko wax Adji saar bu ko dégloo dina xam ban yumpaañam la moom xam na ma. d' accord d' accord kon instant bi nii yow encaissé nga wala encaissé woo 300000 yi. gisaguma sax xaalis man gisaguma xaalis dégg naa nag turu xaalis waaye man gisaguma xaalis daf maa daal wax ne ma naa noppi moom dina yëkkati li ma ko waxoon ci pour jënd bagaas mu jox ma ko muy 300000 ma ne ko nag duma ko jël di ree duma ko jël di jooy doy na sëkk ak barke. noonu la demee man gisaguma xaalis dëgg yàlla. d' accord. Euh, sa sa jëkkër nan la réagir bi nga ko waxee loolu. daf ma ne bëggoo dara daf ne man man dama iñaan. daf ne da ngeen leen soxore nee na man dama iñaan dama leen soxore. Mhm. parce que yaayam woykatu làmb la woon dafa génn àdduna. kon yàlla moo ko may lii mais man dama soxor. man ne ko lu la yàlla may ak lu leen nit may bokkul. xanaa ñoom seen situation demeewul noonu. seen situation demeewul noonu. ku leen xam xam ne seen situation dëgg yàlla demewul. voilà léegi yow puisque nijaayam nga doon sëyal am na ñu bëri ñi nga xamante ne ñi ngi génn ñii naan ñoom nijaayu euh, euh, xale bu jigéen bi la ñii naan dañoo bokk xale bu jigéen bi yow est-ce que yow loolu mën nga ci nga ci indi bu jigéen bi ñaari nijaay la am yu góor kenn ka ma ngi ci dëkk ba gàll la yor day jëlee ñi ñi jifir di leen yóbbu beneen nijaayam bi moom moo nekk jifir man moom laa doon sëyal mais xamalaatuma ko beneen nijaay xanaa nijaayu mbedd kon kon Adji Sarr ñaari nijaay la am. actuellement yuy la am yuy dund yu ma xam bokk yu ma xam yi nga xam ne ñoo ma ñaan si woon ñaar lañ. gisuma ci doom bàyyi gisuma ci doomu ndey. d'accord est-ce que. Ah, Adji Sarr jàng na école. loolu moom dese na maa wóor. Euh. dese na maa wóor. ok d'accord mais mën na bind wala mënul bind. mën na lire moom mais bind ma wóoru ma ndax am na leen léegi léeg-léeg benn jour sama téléphone sonné ma won ko mi ne ma kii la promotion la moom ma mën na lire mais bindam moom wóoru ma. d'accord merci beaucoup sa dernier mot lan la. sama dernier moo daal mooy que ne Adji Sarr na xool ci yàlla xam ne ëllëg jigéen la te day juri doom te woy